ngi am suma ben nijaay bu nekk Fi, uh, suma nijaay kaay salaamaaleykum uh, mbuuba uh, mbuba jali suma nijaay alaaji mas mbuba ngi nii ma am lu ndaw lu mala buga laaj ci bir Banjul dañ dee wax Banjul project yi ni di liggéey ni project yaaya jamela ndax lolu dëgg la ndax du dëgg du dëgg dañoo fen waxuñ dëgg doom bi indi ay gaaf kii moo ñëw su nekkee ne moo ko planoon itam mhm. bi mu ñëwee amu doon lum ko liggéey be bi kii ñëwee moom dafa ñëw ànd ak wursak foon seeg everything available mu mun koo def mhm. ñun amuñ nu may bànjul ku ñu fonkal bànjul ñu jàppal la bànjul ku ñu enul bànjul ñu enul moom nit la koo xam ne dafa ñëw rek réew capital ba mooy bopp boppi réew ma moom kan mooy mooy Adama Baro mhm. te billaahi wallaahi Adama Baro jógeegu fi ah jógee gu fii nañ dem pare ngeen ko de pare nañ ko ñun dañ pare lu ne ci Adama Baro ah waaw moo ñu yëg ñu yëg ko ku yëg nga yëg ko ku la yëgul nga teg ko fa macha allah ma ne ah, uncle ah, ni moo doxee nii tali karob gi liggey bi macha allah ngi set bu gade a yi nga daan gis ben pa Grand Street mu ngi ni hola ni Grand Street mel te liggey bangé go on fi ah, bala ñoo wa 2021 Grand Street so ñu fi do fi xàmmee waaye li ma nga setalal adina ah, ah, bi moy yen wa Banjul fan ngeen feto ak president baro ñun ñëpp. président Baro lañ waa Banjul yëpp organise ci loo yëg ak loo yëgut ci suuf ak ci kaw ñu am na yu bari sax duñ ko wax dañ toog organise ne suñ boppam ne bu neexee yàlla ñoo Adama Baro ba delloo waat ko at oro five years loolu du deñ incha allahu man maa la ko wax ñu ngi maa dégg ci lii ci dëkk bi yëpp ngi maa dégg Adama Baro ñu ngi ci ko am ba gis ne delloowaat nañ ko te looluy am incha allah dina toog suma nijaay réewi Gambia àddina bi yëpp lay waxantool ngeen man la seen xarit seen mbokk Dahaba National People's Party Dahaba mu président Adama Barrow ah, teg leen seen baaraam man la ak seen ah, télévision bi nga xam ne moo nekk Gambia télévision bi nga xam ne nay leer rek la nekkee muy Sahel Network TV bi nga xam ne mu si Gambia te doomi Gambian si ñoo moom teg leen seen baaraam ñu ngey ñëw jëf